képp koo xam ne taalibe Seydina Ousmane Sonko bu sel mi dama bëgg nga demal ma ci commentaire nga bindal ma ci Ousmane Sonko président 2024 laal ma sem laal ma abonné loolu rek la bëgg da ngeen a bëgg judd ci torox tangé mag ci torox tangé dé ci torox tangé kon tok leen ngeen sétane àdduna ñëpp gis nañ ne ay vidéo yu wër ci réseaux sociaux bi ñaari maire yu nekk Touba di dox ay kilomètres i kilomètres yor marto di toj ay dal pour am ay fer yu ñu jaay même suñ ci mun ne am téeméer dem dundalee ko seen njaboot teralee ko seen njaboot mais ci réew mi nga xamante ne am nga gaz am nga zircon am nga pétrole am nga suuf su doy am nga naaj bu mat am nga taw bu doy ñu dekké talal suñu loxo di yalwaan dekké talal suñu loxo di ñaan ndax lool lañu yalla wacce ci kaw souf je pense pas askanu Senegal, juk xex Macky Sall mu ci bopum réew bi farata la jug xeex Macky mu juge si boppam réew mi jaamum yàlla bu mat sëkk la ngalawaay sénégalais yi nañu ànd bokk ndey bokk bàyyi jëlee fi Macky Sall mii ndax jëlee fi Macky Sall jaamum yàlla gu mat la senegal yeewu leen ngir jëmmi Seydina Mouhamed bis bu ñu seydinaa Ousmane Sonko mii rawee lu ko sama frère di waxee rek siti seen jël leen seen saak def si mburaake bu doy ut ndox mu doy te songu désert bi nii te xam ne Sénégal pare woo leen sax pour tekki Sénégal suñu frère yaa ngi dee ci géej gi suñu frère yaa ngi dee ci désert bi suñu frère yaa ngi dee dëkk yi ñu naan Libi ñoo ngi ñuy torturer di ñu maltraiter ngalawaay suñu yaay yi suñu sœur yi am ngeen si part de responsabilité yéen la ñuy jox tiset boole ci junni yéen la ñuy jox tiset boole si juróomi téeméer ngeen dem di supporter Macky Sall mii nga xamante ne tey dëkkee di leen noot dëkkee di leen bundu xataal di sàcc suñu alal. ne kenn du ko fi waxee mu retourné ger leen jox leen t-shirt jox leen junni ne ñëw leen ngeen supporté ko parce que jotul ñu yeew